mbokku internet yu Mak TV Sénégal dal leen ak jàmm ñuy am mbégte saa su ne di teew fii ngir ma leen li nga xamante ne ni moom moo di xibaar yi ñu tàmbalee ko ak yi nga xamante ne ni moom moo di maire bu commune bu Hann Babacar Mbengue nga xamante ne ni amaloon na ab conférence de presse démb ci altine bi ci biir mairie bi moom Babacar Mbengue nag ginnaaw bi nga xamante ni daal dina distribuer ay euh, médicaments yi nga xamante ni ñoom ñoo di médecin yi nga xamante ni ñoom ñoo fa euh, teewoon ci loolu nag. nag génnee na euh, lu toll ci 3 millions 500 francs daal di koy teg ci table bi euh, ngir euh, réserve de médicament maanaam képp koo xamante ne nii bokk nga ci commune bu Hann bel bi rek bo daal di feebare mën nga cee faju ci loolu nag jeunes yi nga xamante ni moom ñoom ñoo di footballeur yi doon réclamer li nga xamante ni moom moo di terrain synthétique nag moom daa monsieur le maire daal dina leen koy promettre dans deux mois et demi ci loolu aussi daal dinay euh, jox ki nga ñi nga xamante ni ñoom ñoo ji bàjjanu gox yi lu euh, budget bu toll ci un million de francs fa euh, plus benn bier Makka ba noppi daal di jël lu toll ci trois millions de francs fa daal di koy jagleel li nga xamante ni moom moo di centre de santé yi poste de santé yi nag daal di leen leen di jox lu tollu ci un million de francs CFA. bu ñu noppee ci loolu wax ci ki nga xamante ni nii moom moo di Guy Marie Sagna ginnaaw bi nga xamante ni nag jàppoon nañ ko ci ab manifestation euh, ngir xeex li nga xamante ni nii moom moo di euh, yokkute courant bi ba ñu jàppoon ko ci moom ak ay njegeñaaleem ci loolu nag euh, étudiant yu nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar daal di nañ jug ànd ak ñi nga xamante ni moom ñoom ñoo di collectif bu ñoo lànk ngir xeex li nga xamante ni nii moom moo di libération. coalition bu Guy Marius Sagna ba noppi xeexaale ngir li nga xamante ne ni moo di yokkute courant bu ñu euh, annoncé woon euh, ci fii nii bu ñu euh, annoncé woon fii ñu wax ci ki nga xamante nii nag moom moo di Seydina Fall alias Bougazelli ginnaaw bi nga xamante ni nii jàppoon nañ ko fii ay jamono ngir trafic de faux billets moom Seydina Fall Bougazelli rek nii ni dañoo yaakaaroon ni euh, moom juge bi daf ko daal di euh, fàtte ci li nga xamante ni moom moo di rëbës moom juge bi nag bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'observateur moom euh, lu mu xamle mooy fàttew ko benn yoon dafa am juste ay euh, preuve yoo xamante ne ni moom lay xaar ngir euh, inculper ki nga xamante ni moom moo di Seydina Fall yi euh, ñu wax ci ki nga xamante ni nag jamono ji lëmb na réseaux sociaux yi lool muy Mame Mactar Gueye Mame Mactar Gueye nag nekk fële ca ONG Jamra moom amaloon na ab coow fii ak ki nga xamante ni moom moo di rangu ak yenn ci ay jet setteurs yi moom nag ci loolu am na koo xamante ni daal daal di nay génne information di wax ni ki nga xamante ni moom moo di Mame mag Gueye ci ay jamono ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi doon xeex ngir euh, Sida moom ak Mame Mactar Gueye sax euh, moom moo doon wàcc sur le terrain di euh, distribuer li nga xamante ni moom moo di préservative ñu jeexale ko ak mbir mu doy waar boo xamante ni fële ca pikin la daal di xewee. benn femme la ñu fekk mu daal di dee moom nag euh, ki ko daal di rey daf ko jamate lu toll ci 64 jam-jam ci loolu nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa teewoon ñu ngi doon laam-laamee ni que dañ ko violé ba noppi daal di koy euh, rey waaye nag euh, enquête bi lu mu xamle mooy amul benn cas de boo xamante ni nemmeeku nañ ko ci koor bi ba noppi sax ci lieu de crime bi fekk nañ fa ab téléphone ak loo xamante ni daal moom moo di 10 000 francs mbokku internet Mak TV Sénégal cant ak ngërëm ñeel na leen li lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox di daje ëllëg ak jàmm ci suñu yeneen xibaar.